également mom dafa ñew ci au moins 24 morts euh, ma ngi ci euh ci walf quotidien ñuy wax né près de 50 morts à Saint-Louis euh ci vox populi yene kay nak ñom 24 lañu euh, au moins 24 morts et 21 blessés le bilan donc risque de s'alourdir yene kay bi donc di vox populi euh, yene kay mom mo ci dal di ñew prof euh, doyen bir mangok lu ci mën di am donte bu ci kenn ñàkkoon bakkanam kanam sax euh, musiba la cim réew euh, ci jamono joo xam na ña ca ëpp ñu bari ay ndaw la ci góor ak jigéen ñetti téeméer la ñu tolloon ci gaal gi euh, gaal gi def jéyee ci biir géej gi am ñu ci ñàkk seenuk bakkan waaw xam nga dañuy jaa ja jaalewaat mbokk yi masa masawu leen <coughs> mais dangay mujj dem ba mu mel ni. Mhm. lu lu lu jaadu la quoi boo moytuwul. ëpp na fi ne parce que dafa mel ni dañ ko banaliser léegi dañ naan ñaata moor fan lañu ñu déparé nangam sangam xale yi yàlla na leen yàlla sàmm. Ah, yooyu yooyu rek ngay dégg. Mm. mais mais lu koy arrêté nan la def ba mu taxaw. Mm. du yittee kenn en tout cas way politique yi wane nañ ñeen du seen yittee. Mm-hmm. wala boog du seen yittee bu bu jiitu jiituwul ci seen yittee bu fekkee dafa am ordre priorité.

mais li nekk ci dënnu xale yi taxoon ba ñuy dem génnagu ci ndax li fi nekkoon jógu fi. Mhm. te waxuñu leen du dal seen xel. mais xaw xaw na tane temps yi ah. non tey na wàññeeku. non li ñu xam li ñu gis. Mhm. boo moytul am na yeneen promdol yu ñuy jaar. ba pare gars yi itam dañuy bàyyi ba. affaire boo moytul ñu ngi jël oto. Ah. léegi pourquoi ñoom ñëpp dëkkuñu saint pour pourquoi ñoom ñëpp dëkkuñu Saint-Louis mais mais yu mujj yëpp saint wi la. dafa nek une zone d'embarquement bo len faut que ñu séti fenen surveillance côte bi être partout à tout en tout temps mo mo yombul ñom tane dañuy defi des te té ñi ñi di recruter ak ñi dawal yi xam tefes gi xam tefes gi dañuy dem won ak bu dara xewul dañ dem di wuti di dañ traverser gi dem fu sore sore sore fo mënul yegg métier moomu la ñu bàyyi jën am na am na suut mais bee dafa gën a gaaw ci alal demande baa ngi nii xale yi dem rek lañu ñu bëgg waxuñu leneen mais boo demee Bargny dañu naan la par exemple Bargny ñiy dem fayuñu genn wàll gi dañ leen yóbbaale seen grand frère seen nijaay wala keneen mooy yor gaalam moo koy organiser ñëppay dem histoire jeune fii yooyu ñuy wax ñoo ñooñu fa te mu c'était choc parce que ñaari xale la. kenn ki mu ngi doon liggéey déjà mo mo mo moo influencé rakk ji ñu ànd dem. Mm. mais mais mais mais kooku ñoom bi ñuy dem dañu talal loxo seen waajur mu ñaanal leen. Mm. xalé jigen ñu dem ci gal gi. ñen ñi seen waajur sax jox leen luñu ñu ci gal fi recevoir nañ fi ben ndaw bo xamni ni mu ngi mu ngi wax beut yaangi ta il a tout perdu il a failli laisser la peau et tout après xawma kan moko laaj ci mujjigi ne ko legui nak mu ne ko bu may wat lu mat passe di dem am na benn jeune bu fi mas a ñëw dëkk ay Medina Fall xaw ma yooyu. Mhm. mas na ñëw foog naa xaw ma du subatel teel mas naa ko dégg fii TS TV. dem ak tey la woon. oui ça mhm. à dire bu paas bi di mataat may dem bi mu koy wax il avait les larmes aux yeux. Mhm. qui a frôlé la mort. ça à dire c'est un problème profond gis nga la problématique de la crise de la jeunesse là il faut qu'on y réfléchisse il faut que nous jox il faut que nous jël à bras le corps c'est toujours les enfants des autres demain on verra. Mm.